ginnaaw nuyoo bi ñu ziar leen bu baax a baax te it ci yéen ànd beeg El Hadj Malick TV am na solo ànd boobee yal na jëm kanam ñu bége leen bu baax a baax kontaan ci yéen yàlla yàlla defal leen jàmm ak sutura. abonnement yi nag balaa ñuy commencé vidéo bi dee leen ko dàbbañe yow mii di seetaan vidéo bi di ma xool laalal abonnement bu dee yaa ngi ci YouTube bu dee yaa ngi ci TikTok bi nga dàbbar ñi ko bu baax a baax. ndax ñaari dàbbar ñi lay doon dàbbar ñi ci YouTube bi ak ci bi mu am solo bu baax a baax tey jii nag ñaari information sëngëm bala noo ñëw ci vidéo ëpp euh, kii di euh, Sadio Mané ñancu ak ki nga xam ne mooy Thomas Tuchel lu yees am na fa ndax Tuchel ah, daanaka Tuchel na saajo Mané ci ay xel yoo xam ne xel yu rafet la yoo xam ne xelal na ko gone gi bu ko coppatee tawféex lay doon ci moom équipe nationale U17 bi ñoom it ca Alger ginnaaw victoire bi am ci mbégte euh, mu sedd guy tàggatu nan gone yi ngeen gis leen noonu ñuy mel ni ay jaari nawet nga xam ne daanaka boo ko gisee bala nga koo gisati mu yàgg dabaj-dabaj gi ci biir ñax moomee nga xam ne moo nekk ci Alger muy tàggatu gu am solo tàggatu googee def nañ ko ngeen gis leen noonu 2-0 yi daanaka mënul woon a nekk waaye dugal nañ benn bit ba pare ñëwaat ci seen match yi nga xam ni moom lañ mal ñaareelu match bi nar a nekk match décisif. dañu jóge foofee nga xam ni mooy Algérie ni coow nag jaar France jël foofu la naaw dem fële nga xam ni moo nekk Arabie Saoudi nag coppati fa kii nekk ci bànneexam. di fee ci géejug bànneex di Lionel André Messi ak ñaari goneem yi nga xam ne ma nga leen di wen mbégte ci bànneex boo xam ne ma nga ca Arabie Saoudi di ko fa def mu nekk loo xam ne lu am solo la nekk loo xam ne tamit daanaka ak njaboot ma nga leen di bégal bu baax a baax sori lool football moom mii di André Lionel Messi ngeen ko doon dégg fële ca Arabie Saoudi mën naa am gëmu leen ko woon waaye fi mu toll nii gone gi daanaka ma nga ca bànneex boo xam ni loolu la doon def bu fa jógee nag dana dellusiwaat fii ci Paris Saint-Germain mën naa am nag foofee mu waxtaan fa waxtaanu biir néeg ak goney Dubaay yi ak goney Arabie Saoudi yi bu ko defee bu saison yi jeexee gars yi mu bokk ci njëkkante bi ak Barcelone yeneen information ci kanam.